nit nekk na fi ñuy euh, police yu Brescia ñu ngi ko ñu ngi koy waaj a mu dugg ci ron oto sàcc woo ma téléphone ma ne ko jox ma sa turu yaay ak sa turu sa turu papa mu jox ma ko jox ma seen numéro man maa woo seen yaay yaayam ak papaam papaam bi ma jox ko dog yaay ji ma jox ko dog ma ne ko maa ngi nii ci dog boobu ci kattanu bi yàlla. may wird may wird may wird bi may am juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn la ma woowaat mu ne ma sëñ bi mu ne ma naa mën ko xam barke rasulillahi téeméeri sëriñ yaa leen man jébbalu naa ci yow àdduna ak alaxira maa ngi fii hôpital kii quartier bi Brescia ah mais maa ngi ñu ngi ñibbi asalaamaaleykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaaraat bu baax di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp waa lu xew TV ñoo ñëwaat di leen defalaat neen vidéo ci seen série maîtresse d'un homme marié avant ñuy commencer suñu analyse ñu ngi leen di rappeler que numéro bii ngeen di gis muy affiché mooy suñu numéro service commercial képp ku am loo bëgg a publicité incha allah boo ñu contacter dinañ ci waxtaan ak yow wax la nan lay demee. alors tey bi ñu seetaanee épisode dix huit dañ ci noté quelques points donc juste ñu defal leen benn résumé bu ndaw on a vu que biram mi ngi def ay effort lu bëri ci moom changé na xëy na yóbbu na doom ci école dikk na dugg ci waañ bi togg jéem a def le tout pour neexal Jalika mais Jalika moom elle camp toujours sur sa position donc Birame effort yi mu nekk di def nii. c'est bien boo mais su tegoon lépp ci yoon xaay na tey kon duñ agsi fi ñu agsi nii moom ak Jalika loolu lañ naan fagaru moo gën faju bàyyi ba li am am ba pare nga bëgg cee topp di rafetalaat parfois dañuy dal ñun nit dañuy dugg ci dara def ba ci biir ñu xam ni kat ñun ñii li ñuy def ndekete du woon nii ñu door a jéem a deltuwaat ginnaaw mais tamit nit ak erreur ñoo ànd alors man sama avis ci côté boobu vu que Biram mi ngi def ay effort commencé waat na changé donc Jalika mënoon na dawal compréhension foofu noonu jéem ko baal joxaat ko beneen change xool ba xam après nan lay doxale côté boobu man loolu laa gis pour ñi nga xam te ne ñu ngi dund situation yu mel nii pour ñi nga xam te ne ñoo ngi dund situation mel nii dem ba seen jëkkër commencé dellusiwaat dans ce cas mën nañ ko jox beneen chance xool ba xam nan lay doxalee parce que dafa am ñaari cas yoo xam ne si ñooy taxaw est-ce que réellement biram dafa changé wala est-ce que du day changé changé lu ngir li nga xam te ne jale ko demandé na ko divorce donc dina xaw a compliqué tuuti pour nga mën a comprendre mais quand man na ko jox beneen chance après mu xool li ci kanam parce que daal man dama gis ni lu dul jàmm jàmm moo ko gën. te dëgg la sëy day am tas day am mais nit ku nekk bala ngay tas war nga xalaataale aussi sa njaboot parce que dama ci gis ay cas yu bëri gis nga tey bëri na ay xale yu am problème soit mu nekk ci école bi ñuy jànge wala ñu nekk feneen problème àdduna ci seen waajur yi tàqalikoo ci lay jóge ñoom duñu mën a muñ loolu da leen di topp ba bi ñuy nekk mag parce xool leen xale boo xam ni ci kanamu papaam ak yaayam la juddoo di leen tàmm di leen gis di gis papa di gis yaay xëy un bon jour ñoom ñaar ñu tas ñu taxali ko léegi kenn ci ñoom ñaar lay nekkal mais keneen gi da koy manqué donc soit amour maternel dina ko manqué wala amour paternel dina ko manqué te loolu noonu day joué ci xale bi ëllëg dëgg la nag am na yoo xam ne bu ñu la koy teg ci kër dootoo mën a muñ donc côté boobu daal dina xaw a compliqué mais nit moom loo mën a muñ lu ne nga muñ ko xool sa njaboot xam ne tey jii nii ëllëg day joué ci ñoom parce que tey imagine su Jalika tasee dem bàyyi fa xale yi ëllëg biram takk keneen mu ñëw nekk tàntay xale yi kooku noonu mën na bañ a jël doomi Jalika yi def leen comme ay doomam mën na di leen maltraité ndax kaa yooyu noonu gis nañ ko fi bataay donc yooyu yëpp yu jar a sóoraale la bien vrai que nag dina toll yenn situation yoo xam ni dootoo mën a continuer sëy bi mais sëy moom bala nga koy tas war nga xoolaat bu baax a baax xool paramètres yu bëri surtout bu dee am nga fa njaboot ñu sóoraale njaboot gi daf ciy baax. beneen cas bi aussi waxoon nañ ci dañ ciy dikkaat defaat ci benn résumé bu ndaw muy kaawu goro yi gis nañ également yaayu biram ni mu toogee ci kanamu Jalika. di gaaruwaale et souvent day am da ngay gis maire yoo xamante ni duñu yamale seen soxnay doom et pourtant d'après ce qu'on vu li nga xam ne moom la Jalika di def a chaque fois mi ngi jéem a xool lu neex maire bi mais maire bi gisul loolu di ko gënale ak Lalla lépp li nga xam te ni si biram mi ngi koy def maire bi mi ngi ko ciy fal te lu Jalika def du ko gis mais comme li ñuy wax rek. lu ëpp tuuru donc Jalika tey li mu def certes d'une part dinañ ni loolu du woon jikkoom mais d'autre part dinañ ko mën a comprendre parce que loolu ak nit ñoo ànd parfois di nga dem ba di nga sës di nga jóg génne li nga xam ne moo ne ci yow pour mën a soulager wu. gis ngeen tey parents yi Jalika ñu ngi jéem a def le tout pour arranger mais bu ngeen seetloo mère bi mi ngi gën a pousser biram pour mu may baat Jalika. donc bëri na ci goro yoo xam te ni si nii seen kër lu fa yëngu lu ne ñoo ko yëngal comme ni ñu amee habitude di ko wax rek dañuy sëy seen sëy ba mu jeex bëgg a sëy seen sëyi doom et loolu souvent bu amee rek problème day am kilifa boo nekkee ci kër sa soxnay doom ak sa doom nga war a yamale gis nga ñoom ñaar boo leen jàppee ni say doom lañ problème du am parce que bët bi ngay xool kee loolu ngay xool keneen ki ci des bu ko defee problème du am mais bon le coup est déjà parti maire bi li mu bëggoon am na ko parce que Jalika ñaan na baat biiram may ne ko mais tamit ñuy dellu di fàttali goro yi que waajur wu ne sàmm nga te ëllëg sunu borom dina la laaj noo doon sàmm sa njaboot loolu mat a bàyyi xel la alors buñ ñu ci point boobu ñu ñëw tuuti ci rat yi donc on a que mi ngi def ay effort mi ngi expliquer psychologue bi tey li nga xamante ni si moo ko dal et ça fait déjà du bien parce que c'est tellement dur nga am loo dund depuis bi ngay ne xale noo ko wax kenn mais si fois nga partager sa histoire ak kenn au moins dina wàññi lu bari ci yow parce que nit lu nekk ci yow boo ko gardé daf lay sonal mais si fois nga partager ko daf lay soulager lu bëree bëri rawatina nag nga gis koo xam te ni si nii spécialiste la ci métier bi nga mën a waxtaan ak moom man ko expliquer sa problème mu mën la delloosi alors conseil bi ñuy jox ñi nga xam te si ñooy dund lu mel noonu mooy ñu partager seen histoire ak koo xamante ni si am nañ ci moom yaakaar wala s'il la faut ñu jéem a gis benn psychologue man ci waxtaan ak moom moo ma leen dimbali ci côté boobu parce que ngay dund dara te mënoo ko génne dafa doon lu metti parfois nag dinañu arrivé ñu dund loo xam te ne duñu bëgg kenn xam ko mais plus que ngay yàgg ak moom plus que ngay màgg ak moom mu lay gën di sonal donc loolu benn conseil la rek bu ñuy joxe képp koo xam ne yaa ngi dund dara jéem ko partager pour mu mën a oyof ci yow. donc tey loolu moo nekkoon suñu vidéo di leen remercier encore une fois te di leen wax ni ubbi nañ ñëpp suñuy buntu képp koo xam ni soxla nga ñu. que ça soit nga bëgg publicité wala nga am looy partager incha allah boo ñu woowee dinañ ci waxtaan ak yow lépp lu luñ ci mën def lépp luñ la mën a jàppale dinañ ko def ci kàttanu suñu borom donc ñu ngi tuubaat bu baax a baax di jégalu képp koo xam te ni liñ fi wax laal na la ñu ngi lay jégalu bu baax lépp loo xam ni si jub na ci wala baax na ci ngeen xam ne ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci man mii di wax la parce que nit matul ci beneen vidéo incha allah. nit nekk na fi ñuy euh, police yu Brescia ñu ko ñu ngi koy waaj a tëj mu dugg ci ron oto sàcc woo ma téléphone ma ne ko jox ma sa turu yaay ak sa turu sa turu papa mu jox ma ko jox ma seen numéro man ma woo seen yaay yaayam ak papaam papaam bi ma jox ko dog yaay ji ma jox ko dog ma ne ko maa ngi nii ci dog boobu ci kattanu bi yàlla. may wird may wird may wird bi may am juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn la ma woowaat mu ne ma sëñ bi mu ne ma naan ma ne ko barke rasulillahi téeméeri sëriñ yaa leen man jébbalu naa ci yow adduna ak alaxira maa ngi fii hôpital ah, kii quartier Brescia ah mais maa ngi ñu ngi ànd ak sama mag ñu ngi ñibbi.